Rewmi 24 TV. ak jàmm ci xibaar mardi 26 décembre. Ousmane Sonko mi nga xamante ne jamono yi maa nga ca prison bu Cap Manuel ñi nga xamante ne ñoom ay ñooñam lañu ki ci mel ne rek ki nga xamante ne moom mooy Serigne Cheikh Thioro Mbacké maa ngay yëkkati ay kàddu maire ba moom mi di Serigne Cheikh Thioro Mbacké maa ngay xam ne ne ay yooni yooni yoon rek daal dina koy dem ca prison bu Sébikotane ngir mën a seeti Ousmane Sonko waaye nag juge bi rek di Maham Diallo moom moo ko koy tere gis moo koy xamal rek sa permis dañ ko ciire mënuloo gis Ousmane Sonko moom mi di sëñ Cheikh Thioro ma ngay xamle ne gis na rek takk ndeer Sonko waaye gisul jëmmi Ousmane Sonko mu doon loo xamante ne daal dina koy lool ginnaaw rek ba nga xamante ne yóbbu nañu Ousmane Sonko boobu foofu ba léegi mënul fexe rek ba teg ko bët jaabante dafa ay yooni yoonu waaye bu fa demee rek kii ko koy tere gis mooy juge bii di Maham Diallo moo koy xamal ne mënuloo gis Ousmane Sonko ndax xët sa permis bi dañ ko retiré mu doon loo xamante ne metti na sëñ Cheikh Thioro Mbacké ma ngay dànkaafu rek ki nga xamante ne mooy Maham Diallo di sàkku ci moom rek ñu daal koy bàyyi mu ngir mu mën a gis ki nga xamante ne moom mooy président Ousmane Sonko.